bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa ginnaaw bi leen nuyoo sant suñ boroom tabaraka wa taala julli ci yonantam bi ngi leen di di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq tey jii ci aljuma gi tombeek 30 août 2024 ñu daje fii ci atub kër sëriñ Asmor Dia te lay jubalaayu daje bi mooy association bi nga xam ne mooy ànd taxawu askan wi daje fi ngir amal beneen jotaay ci jotaay yi nga xamee ne baaxoo na di ko amal ngir wëyal li nga xam ne mooy liggéey bi nga xamee door na ko boobu ba léegi. di sant mboole ñi nga xam ne ñoo fi teew moo xam ñi nga xam ne ay membre lañ ci association bi wala sax nekkuñu membre waaye wuy si nañ ngir bëgg a xam yëngatu association bi ngir man cee participer wala mën a soñ ñañ dëkkal wala ñan bokkal pour ñu mën a participer ci association bi. jotaay bi nag nii lay tëddee ginnaaw buñ tijjee dana dénkante ay kàddu kàdduy yu ci njariñ li nga xamee ne ak ngëne li nga xamee ne suñ diina jox na ko dajaloo ngir def lu baax waaye dajaloo ngir def lu baax ci société bi nga xam ne mooy société musulmane bi li nga xam ne bokk nañ di dund su noppee kàddu yooyu danañ jox sëriñ Asmor Dia moom sëriñ Cheikh Dia Khary moom it mu jàllale kàddu suñ ca noppee kàddu association bi moo ji sës ki ko jottali mooy soxna Mariama Gajaga moom it dana leeral lépp la ci association bi ci seeni euh, bëgg-bëgg ak li nga xam ne ay réalisation yoo xam ne jot nañ koo def ak seeni euh, bëgg-bëgg yi nga xamee ne ñu ngi ko jublu te fas yéene ca àgg lay tëj jotaay bi mooy kàddu kilifa ki nga xam ne moo leen fekk si muy Serigne Asmor dana nga jox moom muy tëj kàddu gi ñaanal askan wi wala ñaanal mbokk yi ñu daal di yëkkati jotaay bi allah allahu taala dañuy bëgg bala euh, jant bi di so ñu fexe tënk kàddu yi kàddu gu ñu nekk rek ñu jox ko lam yelloo ci ay minutes su defee ñu mën a daal di tàggali ko kon ginnaaw ubbite googu ak leeral yooyu kàddu gi nga xam ne moo koy njëkk mooy suñ borom tabaaraka wa taala ci diineem yi lislaam fan la teg dajaloo ngir yéene def lu baax ndax ni ma ko waxee toujours ab julit lépp lu muy yëngatu subaa ngoon war naa xam diine ji askano fan la ko teg ndax yaakaar naa ne ku yëngatu ku yëngatu di séq ab jéego di wax wala ngay jëf tiyaaba nga bëgg tiyaaba nag mënoo ko am te defuwoo jëf ja na la yàlla sante loolu mënta nekk moo tax nit lépp lu muy bokk lépp lu muy yëngatu war na koo seet ba xam ne lii kat njariñul àllaaxira mi ngi ci wala njëriñu àdduna mi ngi ci ñaari jéego yooyu la nit war doxee euh, association baat bi soo ko xoolee benn moo boo xam ne dafa jugee ci ñoo xam ne dañoo dajaloo associé la maanaam dañoo dajaloo la leen daje nag la xool am mbooloo ku nekk mën ngaa tudd sa aw tur waaye tur yi tur wala la muy tekki ak li ñuy yëngu te ñuy xool lan la licence ba la mu jeex loolu lay xool ba pare aw du jug rek. lislaam atte tur woo lii la waaye day xool ñooñu la ñuy def lan la tur wi ñu tuddoon yi la def si biir lan la su noppee nag mu soo di wax loolu. kon ginnaaw nit ñi dañoo daje te la leen dajale di jubloo def lu baax la ñuy am akas néew ku nekk di làmb ci sa poos ci sa gafaka dafa def bu dajaloo ñu ci dimbalante loolu am na ci saa lu ba lu rëy ci lislaam ay yu bari ci alquran day ñëw di tegtee loolu suñu borom soo soññee na ci bataay benn soññe na ci digle ko waaye wax na melokaanu yonent yi ci boppam ne ñoom daanañ gaawantu di ci lu baax saa buñ ko wootee ba noppi tagg na ay jaam yoo xamante ni bii ñu ragal yàlla lañ ñooñu doon àjjana ëllëg seeni mbir dajaa bokk daanañ njëkkante jëm ci lu baax aaya bu njëkk bi suñu borom ci mujj sootul xaj nee na wafaalul xayra laallakum tuflixuun def leen lu baax ndax nga mën am texe àdduna laaxira wa faalul xayr xayr googu lépp la lépp loo xam aw yiw rek defal bi muy wax ci yonte yàlla zakariya nee na li taxoon ñoom su ñaanee moo wi leen mooy lan innahum kaanu yusaari'uuna fil xayraat danaa njëkkante ci lu baax boo demee sóoratul muminuun ba léegi nee na ba muy tagg jaam ñi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy doonu àjjana dane ulaa'ika yusaari'uuna fil xayraat yemuñ ca waxum laa saabiquun dañ ci daan njëkkante dañ daan njëkkante kon loolu moo bàyyi xel la ab julit li mu war a nekk soxlaam mooy yéene lu baax def lu baax yéene lu baax ak def lu baax def lu baax nag suñ ko waxee suñ ko waxee mu bépp nit jëf joo xam ne nit ki mi ngi koy def te xaaru ci fayuk àdduna xaaru ci sant guñ koy sant xaaru ci fàggute fi yoo xamante ne bu teew la lim ci xaar mooy lan fayuk yàlla ëllëg la la ci xaar loolu day tolloog xidma bi nga xamee ne moom na sëñ bi woote al ibaada wal xidma googu noonu xidma googu mooy tolloog amalul xayr ndax xidma mooy loo xam ne jamono ju ñu koy def fay yàlla gis nga ci xaral xaaroo ci adduna jun la ciy jox wala kàddu yu sant yu lay sant wala fàggu teefu adduna joo xamante ne bi daa am fu muy yem kon loolu mooy loolu mooy euh, loolu mooy amalul xayr jëf jëf ju baax jëf ju baax nag jëf ju baax bala moom maa nekk jëf ju baax ni ma ko waxee léegi suñu borom moom mooy wax ne jëf ju baax la yow mënoo def sa jëf ba daan li jëf ju baax la tudde ko sa jëf ju baax lu dul ne lislaam moo wax li jëf ju baax la lislaam moom mooy wax ne li jëf ju baax la ñu sotti xam ne jëf ju baax la ngeen li nga xam ne wala condition yi nga xamee nag nit ki saa buy def jëf ju baax war na ko bàyyi xel bi njëkk mooy li muy def na yàlla tax li muy def na yàlla tax pour nga am ci tiyaaba sa dërëm bi nga yëkkati joxe ko keneen yëkkati ab joxe keneen yëkkati ab joxe ba mu dajaloo ñu ciy def lu baax loolu nga def noonu na fekk na fekk jëm yàlla moo koy def jëm yàlla moo tax def ndax nit lépp lu yàlla taxul mu dojam tiyaaba loolu yàlla ko sëq yàlla dafa sëqut kenn nga def lu baax yàlla taxul mu lay fay mënta nekk ku bëgg yàlla fay la dangay def ngir moom ku bëgg yàlla fay da ngay def ngir moom kon jamono ji ngay yëngatu da joxe sa sa dërëm di joxe say kàddu di yëngatu def lu baax ci sa mbiir biir mbokki julit la ngay def noonu boo ci bëggee tiyaaban yàlla tax ixlaas boobu mun cee ñàkk ñaareel ba mooy la ngay def pour mu nekk lu baax lu yàlla sant na tënku ci tënku yi yàlla tënki sharia yi yàlla digle jamono yi nga def lu baax li bu ca lenn nekk loo xam ne da koy kooj da koy yàq ba tax yàlla ko nangu loolu bokk na ci léeg-léegi nit ki def lu baax pare jublu ci ñu koy tàgg wala def lu baax pare jublu ci ngisal nga xam ne li muy yàlla def yàlla taxul kon faaw li ngay def jamono ji ngay def sa xol na ci yàlla nekk yéen na ci kese nekk bis boo nar a def dara te yàlla taxul ba nga bàyyi ko doo jëm tiyaaba da ngay sonn rek waaye doo jëm moo tax benn borom wax ne soo defu ngi yàlla jëru ngay sonn ndax loo soon sonn ab coono kese ngay am waaye waaye du la jaay dara kon jamono ji ngay def lu baax na yàlla tax dégg nga waaye jamono ji ngay def lu baax na sa yéene dëggu sa yéene ci boppam na dëgg sa yéene na dëgg bu fekkee ne yéen ci am yéen ji nga ci am jeneen la joo xam ne bokkut ak yéene ji nga xam ne mooy ju ju ju ju ji soobaa loolu du la jëriñ dara euh, mbir yi nga xam ne wala avantage wala ngëneel li nga xam ne jëf ju baax ju mel nii am na ko loolu dèjà bokk bi ci njëkk mooy am ngërëmul yàlla ak cofeelu yàlla am ngërëmul yàlla am tamit cofeelu yàlla ndax suñu borom ci alxuraan soññee na ba tàyyi dajale saw saw ñàq di ko def ci sa biir mbokk julit alinfaq fi sabilillah ci lay dugg yooyu yëpp ci dugg dégg nga toujours day soññee ci nit ki muy yëngatu yëngatu boo xam ne jëriñ mbokk julitam euh, la ca bëgg te loolu ame ci ngërëmul yàlla ak amee ci cofeelu yàlla lu lu gaaw la waaye charte bi rek ni ma ko waxee léegi mooy na yàlla tax su yàlla taxee nit ki dana jariñu dana jariñee su yàlla taxul nag mën ngaa jariñ keneen waaye yow doo jariñu ba li topp mooy jamono ji nga yëngu def lu xamal ne nit ñi ku leen jariñ lañ bëgg su bëggee am xool nit ñi am seenu cofeel da ngay fexe ba amal leen njariñ waaye nit ñi li fekk amoo leen jariñ xañ na mën nay jëfante yow jëfante boo xam ne bu yem ci kaw nii rek la waaye yow yow mi xam ne toujours yaa ngi leen di jariñ nga xam ko wala xamoo nga xamal ne ëmbal na la li ay waykat waxoon ne rafetalal jëm ci nit ñi kon seeni xol dana lu bëri jëm ci yow ahsin ila naasi tastambit xulubuhum say seeni seeni seeni xol dana la jublu kon nit ki jamono ji ngay yëngutu ci lu baax di dajale ay nit di associé di def naa di yëngutu xamal ne nit ñi yaa ngi am seen cofeel moo xam nga wala xamu ko ba tey day dundal li ñuy wax valeur maanaam jàppante ci biir ab société ab société saa boo xam ne ñu ngi dimbalante ñu ngi dimbalante seen biir day tax société bi day jàppaloo day tax valeur yi nga xamee ne moom lañ fi moom moom lañu lislaam bàyyeel valeur yi xam ne moom la ñu ñi bàyyeel ci wàllu jàppante dëgërante jamono yi nga xam ne ñoo ngi dajaloo ku nekk andi sa doole andi sa ñaq andi say kàddu day tax ñun ñu gën a fonk ñun ñu gën a valeur yooyu ndax lislaam dafa fonk jàppante lislaam dafa fonk dimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa na ngeen dajaloo di dimbalante ci mbaax ragal yàlla mbooloo mi nga xamee ne day ànd nag di dimbalante ci côté boobu loolu day dundal valeur islamique yooyu day dundal valeur yi nga xam ne c'est valeur ay ay valeur euh, sociétale la yoo xam ne euh, dañ koo yàgg euh, dañ koy dañ ko dañ koy dañ ko yàgg dund waaye day tax tamit relation yi nga xam si mooy am ci diggante ñi nga xam ne di dund société boobu daal dund ndax nit ñi ku nekk mën ngaa nekk fa nga nekk yor sa la nga yor nekk ci yow kese di yëngu waaye jamono yi nga xam ne nit ñi dañoo daje ngir ku nekk la nga am nga andi ko ñëpp bokk ko loolu tax relation yi day gën a day day dund ndax ku nekk dinga nga jariñ sa moroom jariñ loo xam ne boo toogoon fee yow kese doo ko jariñ kon daje bi ñu dajee day tax relation yooyu diggante ñi nga xam ne ñoo dund ci société boobu daal di gën a dund loolu yi loolu jëf ju baax yu mel nii bokk na ci li nga xam si moom moo koy andi waaye day tax nation yi ci boppam nation yi nga xam ne dund ci ab société loolu day tax ñu des fa ba léegi ndax ki nga xam ne ki xam ne dafa dafa bokk ci ci ci jëfi baax yu mel nii euh, bu soxla ni ñi jóg waaye su euh, nekkee ci ay torof torof wala ci ay jafe-jafe nit ñi jóg daa koy jàppale loolu day tax kenn du seetaan kenn day tax tamit politique bi nga xam ne moom l'islam andi ci desal nation yi ci kaw suuf loolu day tax mu gën a avancé mu gën a avancé loolu day mu gën a avancé loolu day tax mu gën a avancé jàppalante ak dimbilante ak ku nekk la nga tane sama nga dimbileeku daraja la alal la maanaam ak am xel la ak yeewute la yooyu lislaam ci boppam da koo bëgg bari na ci lislaam mbir yu bari yum digle mu nekk ay jaameyàlla ci kaw nii waaye xikam xikam yi nekk ci biir di dajale ay nit ak di leen euh, boole lu yu baree baree bari la li tax mu digle julli julli mbooloo ci jumaa ji xikam yooyu ci la bokk li tax mu digle julli ajuma xikam ci la bokk li mu digle julli iid ci la bok li mu ne day leen joxe azaka ci la bokk yooyu yëpp xikam yooyu ci la bokk muy fexe ba nit ñi mën a dajaloo ci benn buum boo xam ne daa am lu leen boole ñuy ànd di defandoo lu baax di yéenoo lu baax di defandoo li nga xam ne si moo di di am noot waaye association yu mel nii te loolu tax leen jug day tax euh, mboolem loo xam ne luy gàllankoor raw askan la ñoom danañu ànd man ko faj ndax nit ki naa yàlla mën na ko natoo feebar yàlla mën na ko natoo ay gàllankoor mën yeneen waaye daje gi nga xam ne dañ ko dajale di ko dimbalandi suñu dana tax koo xam si am nay gàllankoor moo xam ak wéradi la moo xam ñu doon te amul dooley faj wala lu mel noonu yow nga yëkkati sa alal yëkkati ci sa doole daal di joxe keneen joxe loolu dana tax ñu mën koo ñu mën ko mën ko dimbale waaye ba tey day yokku force bi nga xam si moom la ab société am ab sos ku nekk mën ngaa beeru ci sa kër ku nekk mën ngaa beeru ci sa liggéey ku nekk mën ngaa activité waaye suñ boolee doole yi day tax njariñ la day gën a matale day tax tamit doole ji day gën a day gën a yokku ndax li ñu fa olof di faral di wax mooy lu kenn man ñaar ko dàq lu kenn man ñaar ko dàq ndax yow ba ngay def yow da ngay sukkandiku sa xelum bopp kese waaye su kii ñëwee ki ki ñëw yow mën ngaa fàtte loo xam wala nga bëgg wax loo xam ne si ni bii rëcc na la kii am xelam jàpp na ko kon fors boobu muy dajalewaat eh, ak tamit eh, doole jooju yu mel nii bokk na ci li nga xam ne si moo moo koy moo koy indi waaye su fekkee ne dañoo bu fekkee ne dañoo dañoo dajaloo ngir jëf jooju baax nañ fexe ba toujours di di dàkk ndax nit ki léeg-léegi léeg li ngay def li ngay def mën naa nekk lu baax maanaam li ngay def nii mën naa nekk lu baax waaye lim nekkee lu gën am na leneen loo xam ne moom moo ko gën ndax fadl fadl mën naa nekk waaye afdal mën na fee nekk lii mën naa nekk loo xam lu baax la waaye am na lu gën a baax toujours nag ni kii bu ndajee def lu baax nañ fexe ba nañ fexe bay dàkk li gën li gën ya bañ jam rek ci li nga xam ne fadil la fadil la am afdal loo xam ne lu baax am lu ko gën a gën gën nañu fexe ba def loolu euh, activité yi nga xamante ne bii nit ñi ngi koy taxawee ci mbooleem association yi yëpp fexe bay jàppante fexe bay liggéeyal borom bi tabaraka wa taala ci euh, moo xam di ko liggéeyal ci daaraam yi la wala di ko liggéeyal ci maanaam bërëb yi nga xam ne si bërëb kaay bërëb jaamukaay yàlla la di ko liggéeyal ci jaam yi ci boppam yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne luy delluwaat ci euh, société bi la lu delluwaat ci njariñu jullit la lu delluwaat ci euh, dolli doole jullit ñi loolu lépp ci lay delluwaat kon ñu fexe ba loolu ñu ñu ñu ñu bàyyi ko xel te bañ a fàtte tamit bañ a fàtte bañ a ci ne Euh, nit ki lépp loo xam ne ni def na ko ci aw yi lu mu tuut tuut lu tuut tuut baax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ci loolu nee na bu fekkoon ne dañ dañoo wax ne yama xiyaam suba lay taxaw yama xiyaam suba nga xam ne suba lay taxaw fekk nga doon jëmbat ak garab sax bu fa jugee te jëmbat te àggale woo jëmbat gi xam nga mun ne suba la yama xiyaam di taxaw moom daanaka kenn kenn am kenn doo jamati soxla ndax suba la yama xiyaam taxaw garab bu fi bu fi suba fekkee ni yàlla di faagaagalee yi gis yëpp noonu koy faagaagalee waaye nee bu néew suba nga xam ne taxaw nga fekk nga jëmbat garab sax continuer jëmbat ko ba pare soog dem loolu lan lay tekki mooy lépp loo xam yaa ngi koy def mu nekk lu baax ak lu mën doon na ko àgg na nga ko na nga sax ba sax ba màgg te it waxaan na ne lépp loo xam ne mën koo def ba jàpp ne mën ngaa mucc ci sawara donte aw xaru tàndara ba mooy xar ci digg bi la joxe ko sax defal loolu ittaqu naara wala bi shiqqi tamra donte loolu la donte nit ki day jëmbat ak garab garab googu meññi bu fekkee lu ñuy lekk nit ñi di ci lekk bu fekkee lu ñuy kerloo nit ñi di kerloo xamane lool nit ki mën na jamee àjjana mën na jamee àjjana benn dërëm bi nga di joxe ko ak nu man di toll loolu man nit ki mën na jamee àjjana mën na jamee àjjana suñu borom tabaaraka wa taala day soññee lu bëree bari ci alquran di wax ne lépp lu ngeen def ci aw yiw yàlla xam na ko wa ma tafaalu min xeyrin yaalamuhu llah lépp lu ngeen def ci aw yiw lum lum néew néew néew néew néew yàlla xam na ko léegi nag nit suy def dara ba noppi di seerloo yàlla li muy def loo am solo la xam-xamu yàlla bi na loo doy sëkk nan la doy sëkk maanaam li ngay def na ko yàlla xam boo xasee def li ngay def moom di sàngam xam na ko di sàngam xamu ko di tudd na ko di sàngam tudd ko loolu lépp bu mu la ñor yow daal ba nga yëngu yàlla tax nga yëngu yëng naa ba pare jéena nga avancé jàll ci leneen loolu mooy tax doo sonn waaye su ne saa boo yëngutoo da jàpp nit ki nit bu ko xut man awma li bëgg soo baa yow ah, da ngay da sonn kese daañu sonn moo tax jëf yu baax yi nañ ci bàyyi xel loolu nañ ci bàyyi xel loolu baax a baax a baax nañ ci bàyyi xel loolu fexe ba euh, di di di di di di di dimbalante ngir yàlla di di di di jëf yi jëf yëngu ci mbiru mel nii lépp ñoom ñu xam ne dimbalante gi lislaam wootee cosaan lu rëy loolu ak tamit ban ak tamit bànqaas bu rëy boobu noonu ci la ci la taxaw ci la taxaw loolu képp kuy def te loolu tax ngay def loolu di nga ci am di nga ci amee tiyaabe suñu borom tabaraka wa taala Euh, ba tey ab julit di dox ngir yenn sens dafa wax ne képp koo xam ne mën naa jariñ mbokkam julitam na ko jariñ man istataa minkum an yanfaa képp ku mën a jariñ sa mbokk ak loo ko mën néew néew néew nee na ko jariñ nee na ko jariñ man istataa minkum an yanfaa axaahu falyafal loo ko mën a rek baax na njariñ lu mu néew néew néew yow boo ko xebee suñu borom mi tax nga koy def xeebu ko suñu borom mi tax nga def xeebu ko yu mel nii di ko woote ak di ko feesal daa am solo ndax li tax ma am solo mooy suñu borom dafa wax ne daa wax ne liggéey def ci lu baax lu mel ni ay saraxe di jël di joxe nee na boo leen ko boo leen ko feeñalee lu baax la la ma tax nekk lu baax mooy ndax mën ngaa soñ ñeneen in tubdu sadaqaati fa ni'immaa hiya soo leen ko feeñalee feesal ko ba ñëpp wusi ji nee na lu baax la waaye in tuxfuuhaa nag boo leen ko nëbbee wa tu'tuhul fuqara fa huwa xayrun lakum moo tax fésal lu baax lu am solo la pour lan nit ñi man la caa fekk nit ñi mën la caa fekk kon loolu ñu bàyyi ci xel ci ne bépp daje boo ñu koy dajee te njariñ la dellu ci juliñ ñi dellu ci askan wi dellu ci euh, euh, ñi nga bokkal te fekk na bañ koy woote yàlla la moo tax ñu koy woote yow nga jël sa mbir di ci yëngu te yàlla tax laa jóg xamal ne yaa ngi ci fi sabilillah xamal ne yaa ngi ci fi sabilillah Euh, bu ko defee kon loolu ay kàddu la woon yoo xam ne rek kàddu yi soñante la woon ci li nga xam ne moo ñu dajal tey euh, ni ma ko waxee léegi ci bi may tàmbali ni ñu fas yéene déroulé li nga xam ne si moo di programme jotaay bi de ginnaaw bu kàddu yi kàddu yu day jàllee kàddu soñante yi moo ci topp bu ko dañuy euh, jox kàddu gi Serigne As moor moom Serigne Cheikh Dia xari bu ko defee mu soñante mbokk yi ci ci topp bu pare li ci toppaat mooy kàddu association bi nga xamee ne moo ñu fi dajale soxna Mariama Gaje moo ko war a jot joxale jotale mu ju toppee la jot mooy kàddu gi sëñ As bu fekkee ne xaña mu génn sëriñ Fàllu teew na fi may sëñ koo jox mu jot li kàddoom kon sëriñ As Mor euh, ja sëñ As moom lañuy jox kàddu di leen bu baax euh, di jël ci bi sëñ As Mor ja sëriñ Ahmad ja Baye Ahmad ja ak sëriñ ja ak Baye Fàllu ja ak mboolem ñi fi toog ñëpp di leen di am mbégte bu baax ci teew gi nga xam ne teew nañ ko ci barab bii ak li ñu tax a jóg te ñu bokk te ñu bokk ci muy ndaje moo xam ne ak mbooloo moo xam ne lu baax rek moo leen yitteel te ñor leen euh, dañuy sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ci mbooloo moom yi te mooy mbooloo moo xam ne dañoo ànd di taxawu askan wi dañoo ànd di taxawu askan wi dajale seen alal ji nga xam ne dañ ko liggéey mu lew leen ñu koy joxe ngir jëmmi yàlla di ko dajale di ko jox ñi ko aajowoo te mbooleem li yàlla digle lépp bari na lum ci dikk waaye joxe moom da ko beral loxo ndax daa wax daa wax ne masalul lasina yunfixoona amwaalahum fi sabilillah ñi nga xam ne dañoo liggéey alal mu lew leen domm ak alal ni mu neexee ci doomu nga xam ne nit bu dee génne alal ju moom sax bu dee ci mbooloo da ngay gis mu fuuyu ngir kan bañ kenn xamal li li mu yor lu mu doon ngir bëggum bëgg alal nga xam ne doomu aadama suñu borom da koo tagg ci dafa bëgg alal dafa bëgg alal lool. waaye nag ngeen liggéey ko mu lew leen ngeen di ko dajale di ci dimbale jaamu yàlla yi mel na loolu cër la bu mag boo xam ne ngërëmul yàlla jiñ ci sàkku danañ ko ci am comme ni ko sa sëñ mu waxee. joxe day lu màgg ci lislaam joxe ndax xol bu set bu baax bu sell rek moo ko man xol bu dëgër boo xam ne dafa bari ay taq-taq bu dee joxe dana xalaat lu nekk waaye koo xam ne yàlla mooy tax nga génn sa alal di ko joxe kooku mel na ni yàlla da koy ñor lool kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ndax àdduna jii de ni ko sëñ mu waxee rek nit ki pour pour nga dund mën a nekk ak ñi faw nga amal leen njariñ amal leen njariñ mooy kenn ku nekk dangay dimbale ki nga tane ndax loolu yàlla sant nañu ko bu yàgg a yàgg buñ ko defoon niñ comme ni ñu ko yàlla digale kon coono yu baree bari yi nekk duñ ci nekk ndax yàlla dafa tollalewut kenn ku nekk daa xool la jaaru ci yow mu defal la ko nga ëppale sa moroom waaye ëpp gi nga ko ëppale da caa jublu ngir nga mën koo dimbale te loolu ku ko xamul rek. Eh, doo ko def comme ni ko yàlla waxe kon nag dimbalante lu am solo la wa taxawoon alal birri wa taqwa suñu borom moo ko wax deen góorgóorlu dimbalante ci loo xam ne ak mbaax lay doon ak loo xam ne dañuy xiir ci ñu ragal yàlla waaye nañ bañ a ci loo xam ne dañuy lor dañuy lor di lor suñu njaboot te lii dimbalante la ci lu baax la kon képp kuñ ci woo nga wuji nang ci ànd ak xol bu sedd ak pësteef ak yitte ndax ab jullit dëgg mooy jëm ci lu baax ànd ci ak cawarte ndax lu baax boo ci jëmee di ko def saytaane da lay gàllankoor ba doo ko def nan nga ko bëggee ba ci lu bari lu ñu yàlla digal rek dañ koy defee niñ ko sentiree waaye duñ ko defee ni ko yàlla bëggee te lool nag liggéeyu saytaane lay doon di dana julli ba noppi waaye boo ko laajee ni mu jullee moom sax lay saar sax du la mën a wax di def baax ba noppi doo ko boo ko laajee du wax maanaam du la mën a wax lu baax li lu mu ci jublu te loolu lépp saytaan moo koy liggéey waaye nit bu ay jëfam sellee ba noppi li muy jëf mu xam fu koy jëf yàlla mën na koo nangu waaye bari na ñoo xam ne dañuy jëfandoo rek waaye li ñuy jëf dëgg-dëgg xamuñ lan mooy ab atteem ak xamuñ lan mooy njariñam ndax baykat yi nga xam ne dañoo ne ci àll bi ah, bu tawee ba tooy dañuy jël seen dugub dem ca àll ba ji ko ji ko bu dee koo xam ne mosoo gis fu ñuy jiyee mosoo gis fu ñuy bay da nga kii day yàq waaye nag dafa xam yàlla niñ koy lebale ak yàlla ni muy fayee moom la yàlla misaal nag ne ñi nga xam ne dañuy def seen alal ci yoon yàlla dañoo mel ne baykat yooyu waaw day dañuy ji pepp waaye pepp mi bu ñu koy ji dañ koy yen tee seen loxo waaye bu leen di ko yàlla delloo dañ leen koy defal mu indi ay sareet ak oto di roñ ba keroog muy jeex kon yàlla ko mën a fay la waaw jëf nag soo bëggee mu sell danga koy sellal ndax jëf yi nga xam ne yëpp maanaam seytaane amu ci aw yoon mooy yi nga xam ne dañ ko sellal te jëmmi yàlla tax suñu borom neewoon na neewoon na saytaane sama jaam ñi nga xam ne ñoom li ñuy def dañ koo sellal ngir man munoo ci ñoom dara waaye di dina jëf ba noppi jëf ja rafet lool baax lool waaye dañ mujj yàqu ndax dafa sellut kon yàlla nañu yàlla mosul jëf joo xam ne sellut te jëf jii ñuy def ngir jëmmi yàlla nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ndax yàlla daram daa tuutut te loo ko jox it dala koy dellawaat jëlul leen rek di jox ngir yàlla mais suñu borom daa wax ne lépp lu ngeen def rek ngir man da ngeen koy dellawaat waaw kon nag taxawaay bi wax dëgg yàlla taxawaay la bu am solo boo xam ne buñ ci jàppee mën naa dem ba kawe suñ njort ndax fii loo fi gis mu soso rek nii la sosoo te dem na ba ëppi loxo waaw ni nag boo amee boo sosee lu baax te muy dëgg dañ cee am pës dañ cee am pësteef te jàpp ko bu dëgër dëgër waaw soo ko defee suñu borom dala cey dimbale bari na koo xam ne day sos lu baax tàmbali waaye bu xoolee mbooloo ma wala ñam àndal lay découragé waaye nit ku baax dëgg lu mu sos te yàlla tax maam eh, eh, découragé du ko yomb. ndax mbooloo mën nañoo néew waaye mën nañoo am pas-pas bu rëy ak yitte ju rëy yoo xam ne yàlla dana leen dimbale comme na amee woon ca Badar rek mbooloo mu néew jàkkaarloog mbooloo mu baree baree bari dàq leen duma leen kon mbooloo buñ buñ buñ buñ na seen pas-pas dëgër kon yàlla nañu suñu borom boole dimbale ñun ñëpp rek lii wax dëgg yàlla lu sedd xol la mën de sama dund gi lépp lu may bokk rek lu may amal njariñ la lépp loo xam ne gis naa ko muy lu baax ñu woo ma ca wallaay xasim danaa ci wuji tamit danaa ci ànd xol bu sedd ndax lu baax rek moo ñor te kenn xamut fa lu baax nekk waaye lii de moom wax dëgg yàlla lu baax la yàlla na suñu borom gën a taxaw bu baax xam naa dañuy gàddal kàtt gàddal gàttal ginnaaw. jërëjëf sëriñ As kàddu am na solo lool euh, te it euh, gën na soññee bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moom la euh, association taxawaas askan wi woote. di ñaan suñu borom tabaaraka mu fay leen ci kàddu yi te defal ñu dégg ak topp kàddu gi ñuy defal mooy kàddu association bi nga xam ne moo mboolee ñi fi teew ki ko joxe mooy soxna Mariama Gajaga bu ko defee ñu teelu ko kon ñu jox soxna Mariama Gajaga mu jotli kàddu association bi. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm. di balu àq ci kàddu yi may yëkkati ndax maa ngi fi toog ak samay kilifa yoo xam ne moom <laughs> kàddu nag bu ñu la ko joxee moom noo mën a def rekk faaw nga wax ci waaye lott naa si wax jëde maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen balu àq bu baax nag di nuyu kilifa kër gi muy sëñ Aas moo Jax di ko sant sant goo xam ne am na tàmbali waaye amul yenukaay yemukaay dama koy seereel ci mbooloo mii ne de sa ñaas yërëm nañu jàppale nañu dimbale nañu uuf nañu bu ma dee wax si sa ñaas sama xol day sori ndax nim ñu def ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal di ñaanal mbokkam yépp nag yal na seen taxawaay yàgg di ñaanal ñi àndal liggéey bi yëpp di leen sant di leen gërëm di balu àq bu baax nag ci mbokk gi di sant it sët yi ndax ci sët yi ñoo taxawal lii ci sët yi ci la lii taxawu biñ xoolee muy sëñ Pape Mbacké mi nekk extérieur di am ay ndimbal yoo xam ne da koy yóbbu feneen te léegi mbokk yi soxla ko looloo tax mu ñëw fii ne dama bëgg ngeen taxawal kuréel goo xam ne li may joxe si àll bi te samay mbokk soxla ko ma di ko indi fii moo waral lii damay jaar si li waral ànd taxaw askan bi ñu daal di booloo suñu bopp ci biir sëddi ñu waxtaan ak sët ba juboo lijjanti suñuy këyit këyit yoo xam ne état moo ko signé mu jaar ci préfet dem ba ci gouverneur suñ këyit yëpp mat ñu woo fii ki nga xam ne xam-xamam ci la màcc muy ndaw newoon na sa dina ñëw ñëwut tey waaye moom mësoon nañ ko fee indi mu amal fi waxtaan wi am solo wax li sabab lii nee na bu ñu voté la assemblée muy képp koo xamante ni yaa ngi ci biir sa social daa war a ñëw te jubluwaay bi du lenn lu dul liggéeyal suñuy askan moo tax ñu tëdde ko ànd taxawu askan wi ah doole ji nag bariwut ndax 2023 rek lañ ko tàmbali ak 2024 si at lañ tolloogun ak juróom-ñetti weer diiru at boobu ak juróom-ñetti weer dajaleegun nañ fi si lu tolloog somu 532 775 532 yooyu 40 mille yëpp dugal nañ ko ci ab social dimbale nit ñoo xam ne ay urgence lañu maanaam ku doomam feebar wala koo xam ne am nga urgence comme kees gi bariwul ñu génne lu tolloog 10 000 lañ jàppagun buñ buñ demee nag ba doole gi bari mun naa am mu ëpp ko fi ñu mën a dem ci ceet yi di dem ci ngénte yi waaye fi mu ne nii urgence rek lañ ko yemale. demoon nañ fi tam ci mutuelle yi waaye mutuelle yi dugaloon nañ dépensé woon nañ fi lu mat juróom fukki junni daaw ci 2023 waaye bañ ko seetee seet xam ni social boobu mutuelle bi ñu bari nee nañ gisuñu ci seen bopp. tëbuñu rekk décider suñu bopp dañoo dugg ci biir groupe bi ndax am na group ñu tëdde ko ànd taxawu askan bi ñu laaj ñëpp seen xalaat nit ñi nag ñoo génn ak seen xalaat ñu boole xalaat yi segg ñi wax ni jëriñu nañ ci tuuti la ñi wax ni jëriñuwuñ ci nag ëpp ñu ne kon léegi nañ ko bàyyi ba ren di déwén ak état bu bees bii di ñëw xëy na bu ñu xamee nu muy taxawale ñu doog a tàmbaliwaat waaye pour le moment comme que ñi si njariñu tuuti la ñi si njariñuwul bëriwul kon nañ ko bàyyi looloo tax mille 2024 bii dugg ñu ci mutuel ñu dem ci daara yi daaw demoon nañ ci daara yi fukki daara ak ñeent ren ñu dem ci ñaar fukki daara ci ay basang doole gi bëriwul bu ñu sañoon basang yu mag la ñuy jënd waaye doole gi moo bariwul basang yu mag biñ ko laajtee dañ ñu ne benn bu ne 15000 lay jar. ñu doog a jënd yu mille 4800 yi dem ci basang yi ak satalay ak sijaada ak téere alxuraan téere yi nag Ibrahima na tur bi xam xammaala ak xat samiya man nag samay <laughs> njàng daal lañu ñu séddaleegul bés bu ñu doonee nag ba doole gi bari mën nañu dem bay jënd ay kaamil waaw ak ay satala foofu daal lañ tolloogul te bëgg nañ lu kawe njortu loolu te loo gis ñu koy waxtaane toujours dañuy dugg ci groupe bi balaa ñoo dem ci daara ji ren dañoo laaj ñii naan nañ defar suturlukaay ñii naan nañ def lii ñii naan nañ dugg ci maladie waaye xam nga nit mënoo dem si nit naa ko ndax dangaa feebar ku feebar mooy ñëw wax ne ah man kat damaa wérut te sama loxo jotul sama ginnaaw kees gi lu mu ci mën a dimbalee mu dimbalee la waaye nit nag mënoo dem si moom di ko dimbale te xamaloo ko dara nit ki balaa nga koy dimbale na dafay ñëw ne a ah man kat damaa am yitte sàngam waaye kat sama doole bëriwut ku mel ne papa Mamoun mi waxoon na fi man mi liggéey hôpital suñ gisee koo xamante ni waaye cas yooyu ñun dañoo amoon kees cas social lañ ko tudde koo xam ne téye nañ ko te amul lu mu faye dañ daan génne si kees hôpital hôpital moo koy jël en charge ne kii cas social la kookaa duñ ko fayeeku loolu daal fa lañ tolloo gun ci ay dépense di jéggulu te man nag lu ma fi def rek sart moo ma ko may ndax man ba ma duggee ci lii mille vingt 2023 la ak deux mille 2024 2023 bi yëf yi tàbbee si kër gi lu dugg ñu koy leeral lu génn ñu ngi koy leeral ndax buñ sañoon lépp day leer ndax mbooloo bu lay jox alalam war naa xam fa muy dugg war naa xam alal ja na mu toll war naa xam lañ ca dépensé ak lañ ca dépensé wut luñ ci dépensé bidd nañ ko lim nag moo yombut ci Sénégal waaye toll nañ ci ay soixante nangam personnes léegi nag ñi ngi taxaw di foofu ci social yi ci daara yi lañ dem léegi bu kees yi gënee bari mun naa am leneen beneen xalaat yi dañ koy génne xalaat bu ñuy def rek dañ koy génne waxtaan koog mbooloo mi ku ci am sa xalaat nga génne ñu boole xalaat yëpp segg am na bureau am groupe groupe bu ànd taxaw askan wi ak groupe bu sët yi fa la ñuy waxtaanee maam yi di ci def tuur bañ demoon ndàngal ma macha allah barki démb altine lañ demoon wuy ji ndàngal ma Pambake moom moo yor extérieur bi jàmbaare si lool nag koor gi tam séddale nañ ci suukar ak tàndarma loo xamante ni dañ koo may association bi mu moomal ko boppam loolu ñun ñoo koy séddoo ci suñu biir bu dee suukar la wala kii ñu sédd sédd séddale nañ ba sédd sax ñi nga xamante ni sax bokkuñu ci yëf yi doon ay mag nekk ñun ci koñ bi sedd nañ leen suukar sedd leen tàndarma ndax ay kilifa lañ señaas moom nag mi moom it mi ngi ñuy jàppale bu baax di ñu ñaanal di ñu ñaax fu mu toll mi ngi ñuy ñaanal te di ñu ñaax kon nag ñu ngi koy gën a tàllal loxo tey jii rek indi na fi ay teraanga joxe ko ne maa ko jàppale maa leen ko jàppale si gan ñi kon xam nga ni kooku moom yëf yi am na fu ko tollu ñu ngi koy sant di ko gërëm di rafet lu taxawaayam di ñaan nag rek yal na yàlla gën a dooleel kàttanal ñu ba fépp fuñ bëgg a àgg ñu àgg fa. sëñ Ibra mbay tey ma nga Italie waaye xelam génnu fi benn yoon Ibra ja mii la jox place par intérim bii Ibra moom it mu mat sëkk lim doon xëy na lépp si man la manqué waaye du si Ibra man nag soo gisee weer wu dee wu ne may soññee dañ ma ko sant. dañ ma ne ki ŋànk yëf fii moo ma ne weer wu dee wu ne neel diw joxe na diw joxe na diw joxe na mais nag soññee boobu nag moo xaw a diis koo soññi mu xaw a kii te man dañ ma koo sant rek looloo tax man luñ ma sant rek laa def defuma fi leen luñ ma santut ku ma si soññ tam mu métti la maa ngi koy jéggulu di ko balu àq bu baax damaa bëgg mu baax rek liggéey bi lépp lu ma ci def rek wutuma ci lenn man bugguma ci dara lu dul na baax rek ñu taxawal loo xam ne ku ne xam na ni ñeekat passeefu nañ ci li ñuy def maa ngi jéggulu nag di sant ñi ma bokkal. jërëjëf soxna ama ci leer yu am solo yi euh, ni mu ko waxee léegi ni mu ko leeralee sëriñ Ibra Dia wala Baye Ibra Dia Mbayta mi ngi xam ne mi ngi ba Italie moom moo nekkoon njiitu njiitu association taxawu askan wi bi nga xamee ne yàlla def na mu génn. mu laa koy mu laa di jébbal mën nañ ne léegi sëñ Ibrahima mu laa ko fi wuutu ba yàlla def mu teewaat ci biir askan muy sëñ Ibrahima ja moom maam Fallou Dia bu defee kon ñu xamee ko noonu association bi euh, ña at ak nangam laa magun maanaam 2023 ak 2024 daanaka sax 2024 li des bëriwut man na ay weeru néew moo ci des gis nañ góorgóorlu yi nga xam ne jot na koo def jot na def euh, ak tamit bërëb yi nga xamee ne ñoom la sible ndax léeg-léegi liggéey li ci am solo mooy nga ciblé bërëb yoo xam ne fa lañ yaakaar yiw ku xam na ne euh, ciblé daara yi ak ciblé jàkke yi dafa joxe téere yu ñu jànge dafa joxe bassin yoo xam ne ñi jànge la ñu toog sat la yoo xam ne ñiy jàpp jàkke ci la ñuy jàpp li fee ñi ngi ciy jàppoo yéen mi loon sa dërëm sa tiyaaba dala fekk si téere alxuraan bi ngeen jox ko gone mu ci jàng li fay mi ngi jàng arafum jàng yow di nga am tiyaaba ju toll ni jam ci am te du wàññi tiyaabaam dara kon li nga xam ne jot nañ ko def dañ koy saluer bu baax baax di ko rafetlu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu ngi leen dëgëral ba ëllëg ñu mën fee teewaat ñu gën a def yoo xam ne si mooy gën a rëy ni ko siñ asmor jëmee waxee mbooloo mu bari mbooloo mu néew yàlla loolu ñuru ko yàlla jëf la xam jëf jëf ci boppam la xam ni mu waxee kam min fatin qalila galabat fiatan kathiratan bi idnillah kon loolu ñu ba ci xel kon euh, leeral yi am na solo lool waaye euh, koo xam ne dafay teew te mu bëgg a participer ci association bi te jiitu jiitu na mu mu mu bokkoon ci man naa jokkoo soxna Mariama Gaye ga wala mu jokkoo si Ibrahima Dieng mi teew wala bu fekkee ne ñi nga xam ne dañoo féete ci biti extérieur yu mel noonu si Pape Bakk ji mi nga xam ne moo fi teew nekk ba France mooy mën a jokkoo moom ba mën a participer ci li nga xam si moo des maanaam képp koo xam ne gis nga ko daal te mu te mu te mu te te te mu jege association bi te nga am yittewoo bokk rek ñooñu boo leen jokkee daneen la euh, teg ci yoon yi xam ne si ca ngay bokk pour nga mën a participer ci li nga xam si mooy liggéey bi la kon. salaamaaleykum xanaa day lim ñun ñaan mënut a ñàkk am ci ñu ngi nuyoo mbooram yëpp ci turu Cheikh Ibrahima Diop Mbayta muy jawriñu liggéey bi ñu amal mboolem yëpp dafa jiite ay ñu dafa métti jiite ñu ngi soññee ñu woon nit ñi di sensibiliser ndax bëgg mbir yi dox rek xam nga loo am yéene ak ñu na nañ waaye bu ñu batalee génn ñi am yéene yi nan la ñu defee ko ji comme doonte kon lott nañ ji ñu ciy si kii bi lay gàttal ñu ngi nuyu gars yi baax fi teew yëpp ñu ñu àndal liggéey bi yëpp ñëpp ñëpp ku nekk sa ni ko Mariam waxee muy kii dafa bare bokk ci liggéey bi jëmale ci jàppale ñu ak soññ ñaanam mais day participer comme ñëpp parce que daa jënd kàttam. chaque année day joxe 6000 kon ñëpp kon moom membre la ci mbir mi ba pare nekk suñ sëriñ nekk suñ mag nekk suñ ñu sol ñu koy ñaanal suñu borom yàggal taxawaay suñu koy rafet bu hmm. sañ nag ñëpp ñu àndal ci ndax association bi nekkul tuur ko bokk nekkul taam képp ku bëgg a liggéey ci yàlla tax rek ubbil na suñu biir nekkul ñu sant nangam la wala sëti nangam association bi ko pour ñëpp képp ci jëf ngir yàlla yitteel te ci fay fay seen rek njëkkati nga bokk ñëpp lañ ko gis kenn ci ñuy gis kenn xam na biñu demee ba daw six mois comme ñu ko bañ a may am na waxee ci lañu jëm ci daara yi ñu ko defoon daaw defaat ko ren ñu war ñaat ci daara ñu seetee li leen jox kenn ku nekk wëlër boo ko seetee wëlër bu leen doon ci treize mille ñu jox ko ñu mat ñaar fukki daara daaw biñu demee noonu ba pare mbéyum armée li ñëw yaakaar naa ci lu war a jëf mbay amel moo ñëwaat suñu kanam mbay bay amel ay jaayante lañu ko defoon laaj ñu woon ñëpp ñu jàpp ci ay glace ñii ci ndox ñii ci ku ne ci doom yi yaakaar ne bañ demee ba toll ca liggéey ba war nañoo def am lu ba cinquante mille dugal ko ci liggéey bi loolu la ñuy ñu ko jàppee rek ñëpp waajal ko dañu jaayante lu ci waay man rek def di barab bu teel ba jëm muy armée yi ñuy bay bu loolu jàllee bu ñu demee fii ba décembre liñ dajalewaat ci kees gi nañ seet luñ mën a jënguwaat mu jëm ci askan wi rek ñu def ko ñun lu ñu du lu ñuy teg teg bu ñuy teggi du lu ñuy dajal pour kenn askan wi rek ko tax bi jëf ngir yàlla luñ ciy jëf rek fay suñu borom lañ ciy jiitu lañ ciy seen jëf ngir yàlla daal la mbir dund ñu ngi dund suñu bunt ñëpp tëjee ko kenn bu askan sàngam bu famille sàngam ñu sant nangam képp ku bëgg a def rek yàlla tax li ci seet fay suñu borom rek wane na ci liggéey bi bu leen suñu jur jaajëfal ñu ci ànd ak ñëpp nag da leen jégalu bu baax ndax ànd ak nit liggéey dafa yombul te wax gën a jafe à chaque fois ñuy wax ci nit ñi leen soñ soñ bi rek day lu mënta ñàkk moom ndax mbir bu ci bëgg bokk da ngay jënd carte mille bu dee nga joxe ko noo ko mënee boo mënee chaque weer cinq cent donc six mois trois trois mille six mille lay bu dee at bi six mille noo ba balaa at mooy saat waaye nag bëgg nañ ci engagé wu rek bokk naa ji ma matal saat yi bu ñu ko waxee ba doo ci am ak kii benn réero bi ci am. ñuy mm. soññee ñoo xam ne soññee bi tam day lu lu baax ci liggéey tam bu ñuy bu ñu àndee liggéey rek dañ ci waral ku jël sa engagement rek di nga ko matal di ko. Mm. ni nga ko waxee rek incha allah ñu jégalu ñëpp nag ci kàddu yi yëkkati dañu ko ñaante bu dañu am. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñi ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp kenn ku nekk ci juróom ak santam. di leen dalal jàmm di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di am mbégte lool nag ci teewaa bi ngeen teew fii wuy si soxna Mariama mi xam ne moom ngeen dénk mbooloo mi kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen dalal ci turam di am mbégte lool di wax ne kàddu yi fi jot a jàll ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax lépp teg ci aw yoon liñ ciy dolli rek mooy pour seereel leen ne Sëñ Xaadim ni nga ko waxee yàlla bi mu bindoo ngir ñu jaamu ko bokk na ci li ñuy wax ne li ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne. mooy jëriñ bindeef yàlla yi jariñ bindeef yi nag dafa bari ay façon jariñ mën naa bàyyi ko ci góor mën naa bàyyi ko ci jigéen ma leen xamal ne ay mbooloo yàgg na fee taxaw ci dëkk bi yoo xam ne man teewe naa lu bari seet siñ murmaa bu nag seet siñ gaawaa nag Cité El Hadj mag waaye mbooloo mii bañ taxawee ak léegi li ma gisagun ñu amal ko fi ci ay réalisation mbooloo yi ko jiitu woon amal guñ ko fi ndax teewee naa fi ci wàllu mutuelle yi bari nañu jariñu jëriñu wàllu daara yi bari na ay daara yoo xam ne jëriñu nañ ci sama daal ci la wax ak yéen ak ñaari at yi ci lépp taxawaayam soxna Mariama jega ak si Ibrahima Dieng mi nga xam ne moo fi nekk teewal fi Ibrahima Dieng magam ak ci jàppaleeg Pape Mbacke Dieng mi nga xam ne nekku fi waaye toujours alalam ak xalaatam mi ngi fiy teew. ak nag mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd di waxtaan ci seen di diisoo ñu sant bu baax a baax a baax leen wax ne nii rek la yàlla bu waxee ne xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan day mel ni adduna si yàlla doyu doyuwuñ fa dara dara lu may ki ci gën a rafet jëf rek ki gën gudd fan waxul ki ci abu xaalis waxul ki a bari ay doom déedéet ki gën a rafet jëf rek kon yàlla na yàlla defal tawfiq mbooloo mii nag mbooloo yu bari war nañ cee roy ndax association bi ay këyit la yoo xam ne état signé maa ngi koy wax léegi këyit yu mel nii boo ko amee léegi ànd doole Alaaji Sëriñ Ja récépissé boo xam ne. ministère de l'intérieur ci waxam moo ko signé woon Ousmane moo ko signé woon jamono yooyu waaye boobu ba léegi mën xam ne benn jéego doxal gu ko ci kayit woowu benn day sama si am kon ñi bu amee seen kayit yàgg gut ñu ngi lay daje si jëriñante ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax te damay dolli rek ñetti baat ci lay tëjee si El Hadj Mbacke Sakho dañu ko si mbootaayu armeel yi mu ne ay nit bu àndee bëgg ànd ba yàgg te sax li ci jiitu dañuy wóoroonte nawloonte kenn koy jàpp ne sa morom moo la gën a baax moo la gën a jub ñooñu bu amee rek mën naa yàgg waaye li gën a li gën a bon si ab ànd mooy ñaaw njort sa morom te kenn ku xam ne yàlla wax ci ñaaw njort may ñaan yàlla la ci baaxam moom xam ne lu barke nekk moo ko ci def mu barkeel mbooloo mi ba ni ñuy dem di dimbale daara yi ñu dem ba am moyen taxawal seen raay bopp sax mën ñoo dem ba tabax ay daara ba ay école yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu